boroom subhanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nañu yàlla boole jëggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci benn ci ponk yi nga xam ne nit ki daf koy gëm di ko dund ñu ne kii ku gëm yàlla la li tax ñu tànn ko di ko fàttalante ak bokk jullit yi jamono ji bari na ay xew-xew lool lu ne nit mën na koo dégg waaye ku ci dëb jullit na xam ne li siiw mooy da ngay dégg kilifa gu mag gu fi jóge ñu naan yóbbu nañ ko ci këram gu mujj loolu demewu na benn bi nga xam ne dafa bokk ci gëm yàlla dañ di ko fàttalante tey mooy li ñuy wax al yawmul aaxir yawmul aaxir nag mooy am daarul aaxira topp ja daarul aaxira nag muy kër gi nit di mujj a dund dëkk ba faw jullit bu ne war na koy bàyyi xel ci ay waxam ci ay jëfam rawati nag ci pas-pasam ndax kat faw nit dem ca genn ci kër yooyee ca yawmul aaxir ca la nit di xame daarul aaxirati yàlla na nu yàlla dimbali ba mu doon gënu gënal am na charte nag bokk yi bis boobu sunu boroom dendale ne ko ak turam bi ba tey ak gëm ko moom ci boppam lu ëpp benn barab ci alxuraan bu tuddee gëm yàlla da cay teg gëm bis penc ndax fa la lépp di leere julli yi ñuy def nga xam ne gannaaw bu nit gëmee yàlla ci xolam fas ko tudd ko ci làmmiñam nit ñi dégg ko mooy li koy gàllu dundam gépp te du ko wàcc koor topp ca aj topp ca azaka topp ca wala boog nam tegtaloo nam toftalooyee waaye yooyu yépp nag kañ lañ koy toppatoo di seet ba xam jàkk na wala jagul mooy yowmul aaxir ku ko gëm bis bu set mu ne ca jàkk dana bari lu mu ko lu mu koy tee def waaye dana bari lu mu koy tax a def bokk yi ñu baax ña danañ toog ba guddi ñu ne tërit ci ay nelaw def li ñuy wax war ak cekk bu doon suñ jamono sunum xel day na ci taal connexion bi wala ñu dem taal télévision bi jàkkaarloog moom waaye dañ naan déedéet gën a nelaw yi jeex na te julli suba jotagul naa gaaw lu ma mën ci lu baax ma def ko ba suba fekk ma fi ndax kat la ko waral mooy dañ ne jàkk yowmul axir ak daarul axir suñu boroom mi ngi doon wax ci fu muy tudd gëm yàlla teg ca bis pénc bis boobee yowmul axir dalikum yuwaadu bihi man kaana yuminu billahi wal yawmil axir dafa doon àtte ne lii mu leen di wax naan bu lii amee na ngeen def nii lu mat a jàpp la ndax kat ki yàlla di waxal du ku nekk waaye ki gëm yàlla lay waxal te gëm ne bis penc ngi ñëw ñu réglé ko defoon na ko wala defu ko woon am na fu muy wax ne yuminuuna billahi wal yawmil axir moom itam day wax ñoo xam ne bu guddi xasee ba jot ba nit ñi ne baasin yàlla ñu ne fojjet di manante ak seeni moroom ci ku dàq julli guddi ku dàq jàng alquran guddi ku gën a bari la ay salawaatu annabi ci guddi li ko waral mooy yuminuuna billahi wal yawmil axir dañoo gëm yàlla ba noppi ne jàkk bis penc waaye am na fu muy wax it ne dee leen topp yàlla ko yonentam ak seen kilifa ya mati kilifa su ngeen demee ba gisatu leen kenn wala ñoom mënuñu koo régler dellu leen rek bàyyee seen bopp yàlla te teg bis penc ci seen kanam in kuntum tuminuna billahi wal yawmil axir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd na ko ba tàyyi dendale ko leeral ko am na fu muy wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw li yasmut ku gëm yàlla te gëm na bis penc dana ñëw nay wax lu baax fu lu baax yam mu yam fa man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyukrim dayfahu fala yu'di jaara bu ñu demee ci mbindum sëriñ bi danañ ca fekk am na téeréem bu mu tuddee mawahibul quddus nee na soo gisee yow ma yow ma yi bari ci alquran bis baana toll bis ba moo ni toll ci suñu jamono buñ nee suba bisub sedd lay doon bis bu sedd lay doon kuy xëy da nga bàyyi wàlle xel ca la ngay sol ci bu seddee buñ nee bis bu tàng lay doon booy xëy da nga bàyyi walla xel am col moo xam ne tàngaay moo ko tax a jóg kon bis bu ne ak la muy àndal ak la muy dikke mën naa wuuteeg moroomam mu ne nag bis yow ma yow ma yi ne ci alxuraan yépp moo ko tax a jóg la tax ñu tuddee ko nu nekk wooyee ku ne nam toll moo ko moo ko waral dakaraha asmauha dakaraha du shani kathiratan jiddan ala alqurani wa hiya dalilatun ala al ahwali wa shiddatu al awjali wal ahwal la ko waral mooy la cay xew dafa bari ci bés ci la ndëkk di nekk ci la ñu jàpp nit tëj ko mën nañ ko caa jéggal ca lay xiif xiif ba di xiif di ko bëgg a rey ci bis bi ca lay mar ba mar di ko bëgg a rey lu koy dal ci bis la koy dal suñ bis ñu xamagoon mosuñu faa dem nag waaye ki xam lépp moo na waxe waroom xam-xam yi nag juboo nañ ci ne ku fi bàyyi ko tàmbali caa xam dara la koy wutalaay mooy day xaar ña ca des rek ñëpp ñëwandoo moo tax suñ bi ne idil qiyamatu qiyamataani taxawaay say mbir tàmbalee leer ci sa kaw ci say gët ñaari bis la bu jëkk bi mooy bi nit ki faatoo mooy bis bu ndaw bi ci lay xamee bu mag ba nu ñuy demee idil qiyamatu qiyamataani suxra mamaatu kulli ma insaan wa baadaha alkubra wa tilka nafxu fi suuri la yaati mabayi fasxu ba cay topp mooy bi nga xam ne ñëpp fay dajandoo bala ñu fa àgg des na laaj nit ki ci bàmmeelam pas-pasam digganteem ak yàlla mii diineem lan la woon ab yonentam kan la woon ku tontu la mu war a tontu bàmmeelam tàmbalee leer nañ ñi mel ni ab dër dër bu na tax mooy ab jardin jardin boo xam ne waxuñu gazon ba mooy ñax mu ndaw ma waaye meññet ma fa nekk mu ci nekk day buubu doo ci sonn yàlla na ci yàlla boole waaye ku xamut li muy tontu nag day tàmbalee gis ay nëx-nëx yoo xam ne day dolli ko ba faaw yàlla na ci yàlla musal li ñu koy laaj ci borom mooy pas-pasam digganteem ak yàlla li mu façon yàlla yàlla man bu ne yàlla yàlla allazi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad badiu samawati wal ard xaaliqu samawati wal ard xaaliqu l insi wal jinn ñu ne ko boobu moom rek at mi nga ko lu doonoon sa diine mu ne ba ma jàngee inna inna diina inda allahi al islaamu wa man yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu laa jàppoon lislaam mooy sama diine ñu ne ko at mi nga boobu ku doon sab yonent mu ne rasulullah muhammadun rasulullah maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatama nabiyyin yam ca ñu ne ko kon léegi baax na na sam xel dal fii dootoo fi gis dara loolu naqar yal nañu si yàlla boole la cay topp bu fa koo koy yàgg ba yàgg yàgg ba yàgg nag suñ maam ya ñi leen jiitu woon ak ñi leen jiitu woon ñépp ña nga toog di xaar bis dana ñëw mooy bi muy wax ci alxuraan na yow ma yunfaxu fi suur assuur bëfta am na ku ko laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk waaw assuur yi nga gis ci alxuraan mu ne ko dafa mel ni ab béjjën boo xam ne bu ñu ko ëffee ñépp doxe fa faatu lépp wow koŋ ñépp jóge fi summa nufixa fiihi uxra fa ida hum qiyaam suñ ko walaatee ñépp dekki loolu yoo mën a xam ci jamono ji ñu toll ci ginnaaw tuuti àll bi foo xool day wert na tax lool ku cay génne tóortóor génne ko ku cay génnee doom génne ko lépp neex xool pënd du la sonal ndax ñax meegu téye waaye bari na foofu boo fa boo ko demee doo xam fu ñax mi doo ko xàmmee fu mu saxoon ak fu mu saxutoon yow ma leen fa fi suuf ngelalu tàng li moo koy rey jaaz waaye am na ngelaw loo xam ne day ànd ak taw bi bu amaatee ayu bis jëm fukki fan foo xool ma ngay génn ndànk-ndànk ku ko fa jiwoon yàlla noonu mu koy defe ci ju gàncax gi ñu xam mën na lu ko raw bu ëllëgee fa idaam qiyamu yanzurun mooy ñépp dañuy dekkiwaat gannaaw bu ñu doonee ay yax yu fënax ku ne di xool sa moroom xew yu mag yi da nga dégg ku laaj ku ne foo kañ nga ñëw da nga dégg ku laaj ku ne kañ nga ñëw ñi naan biig ñi naan ci suba ñi naan dama jëlu ñi naan dama yokk su ko defee nag ñu soog a teg xaasuub xaasuub ci suñu jamono mooy computer mooy lii nga xam ne boo bindee benn baat mu indi la lu bari dañ ko caa defoon alxisaab ñenn ñi di ko wax régler ñi naan natt ba ci wolof bu boobaa lañuy ñuy génne jëfi jaam ñépp teg gis nga jëf yooyu pas-pasa ko la lool kenn ku nekk nu ay jëfam toll pas-pas baa na toll fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara ku defoon lu toll ne fepp sal góof wala lu ko gën a tuuti dana ko gis mu rëy lool mi ngi mel ni ku jóge ku jële xaalis bitim réew fii ci kayit yu mag yi indi ko fii fii la njariñ la ëppee day gën a rëy day gën a bari waaye wa man yaamal mithqaala darratin charran mithqaala darratin charran yara dara du réer dara lu mu bari bari lu mu néew néew su boobaa nag bu lépp feeñee ñu tàmbalee natt teg balaas yi almizaan ñi jënd ko jaay xam nañ ko am na ñooñ bu ñuy jënd dañuy fexe ba mu yeex a daanu li ñuy am ëpp bu ñuy jaay dañuy fexe ba mu gaaw a daanu kooko jël lu néew ñu jël lu bari waylun lil mutaffifin alladina ida ktaalu ala annaasi yastawfun wa ida kaaluhum aw wazanuhum yuxsiruun alaa yazunnu ulaa'ika annahum mab'uusuuna li yawmin aziim yawmun aziim mooy yawmul aaxira yawmul aaxira ñu tàmbalee peese natt ak peese nag wuute na tuuti natt ay par ay pot moo koy doon pot bi mën naa fees ba ëpp wala mu yées te kii peese kii natt mën na ko bañ a xàmmee waaye natt moom du yées du mag du ëpp du yées mën naa bañ yées mën naa bañ a moo tax mu ne wa nadacu almawasina alqista li yowm alqiyama lu ci nekk ab jéego la jëm nag ci daarul axira ginnaaw du kër gu mujj kër gu mujj fa ñuy jaar ba dem fa mooy yi may lim nii ku ko du xalaat nag loo neex mën nga ko def ak ku nekk ak li muy liggéey lu ko neex mën na ko caa def ginnaaw bàyyiwu ko xel waaye mi ngi ñëw nag ndax kuñ ci ne demal bu suba boo ñëwee ñu signal la na ngay gëm a signature ba mënoo koo gëm ba noppi bàyyi bis ba bis bañ la ko wax mënoo gëm signature ba noppi weddi bis bañ la koy signal fala tuzlamu nafsun shay'a mawazin al qist mooy balaas yu mel nam war a mel wala baskil bu mel nam war a mel kenn laalu ko bañ ko liggéeyee ba ne nii la war a mel xamaguñ ko cay peese noonu lay noonu lay mel amul farfarloo wa in kaana mithqaala habatin min xardalin atayna biha zarra ak xardal daanaka benn firi la lii sal guuf la lii lu ko gën a tuuti wala lu tal ni moom wa kafa bina xaasibin ñii wàññeeka régler ñépp yàlla nee na bu ñu agsee fi man taxaw ndax ñii dana am lu leen raw ndax mën naa am ku leen jiitu ca peese wu kaay ba wala la ñuy peese te nee na moom dara du ko raw loolu it bokk yi ku koy bàyyi xel ci la muy liggéey ak lu mu mën a doon dana ko rafetal ba ci jëflante waaye nag am na bu ca topp boo xam ne ku ci jóge ca ngay dem ci sa daaril aaxira ca sa daaril aaxira mooy li ñuy wax as suraat yu baree bari la waaye dañu ko tënk suraat suraat ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melale nee na moo dafa mel day mel ne suñu jamono ab pont jisr bridge kuy dem poroxaan booy génn kaw ndax la ngay jéggi tiim ndox ma noonu lay mel bari na ci réew mi léegi ñu dugg si Ziguinchor dañ koy romb dañ koy jéggi jóge bi njoonaan waaye nee na moo gën a ñaw jaas yi kon jaar ca lu mat a bàyyi xel la aajanay dàll yu dëgër waaye moo gën a rattaxit kawar kawar amul fenn fu nooy lépp maase kon lu sew rek lay doon ñaw lool di yëngatu wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya thumma nunajji alladina taqaw wa nadaru dalimina fiha jusiya kenn ku nekk ak nam cay jaare wa in minkum illa wariduha amul kii amul kaa ñépp a fay jaar kon warees na seet bu baax a baax a baax kenn ku nekk la muy yëngu akub jëflanteem ak pas-pasam ku ko romb ci jàmm aljana lay dugg ndax ci kaw sawara lañ koy teg nii mu tiime ndox mi ku jàll dugg ci daanu ci ndox mi noonu la tiimee sawara moo tax alquran fa minhum shaqiyun wa said ku ko jàll dugg aljanna ku ko jàll daanu yàlla nu ci yàlla musal wa amma alladina shaqu fa fi nnaar lahum fiha zafirun wa shahiq loolu dara neexu ci wa amma alladina suidu fa fi ljanna xaalidina fiha ma damat alsamawat wal ard illa ma shaa rabuka ataan gayra majthuus kon daarul axira ga ca tudd daarul asqiya mooy ñi nga xam ne seen pas-pas rafetutoon te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yu'taa bi jahannama yawma idin laha sab'una alfa zimaam maa kulli zimaamin sab'una alfa malik malak alf alfa malakin malak malaika yajurunaha nee na bu ñuy jéggi jahannama ñi nga xam ne sawaro yi bari dañ koy mu dañ koy muslu moom yàlla dana ko defal juróom-ñaar fukki junni nos nos bu nekk mu jox ko juróom-ñaar fukki junniy malaaka ñu téye ko téewut muy xëccu di alawtiku ay gaayam ndax faw mu am fay gaay ci pas-pas pas-pas bu baax moo ci musal nit ak jëfe lam façon te teg ko ci diine lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anti yam ca waaye daaru suada nag mooy aljanna الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس والأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون كن لولا موي الدار الآخرة قناو يوم الآخرة yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag nee na yàlla nee na waajalal naa sama jaam ñi nga xam ne seen pas-pas dëgëroon na lool ca lañ war a gëm mu yàlla mel ni mi yónent bi jàngalee nii lañ koy gëmee nee na waajal na leen loo xam ne bët musu caa tege xanaa ka ca dem rek kere bañ koy ubbi bët musu caa tege boobaak léegi bañ ko waajee bañ ko defaree ba léegi bët musu caa tege noppit musta dégg ku lay netti la fa nekk dëgg-dëgg waxuma la am xel di ko xalaat daan ne loolu bu leen naree jaaxal dem leen ci fala taalamu nafsun ma uxfiya lahum min qurrati ayun qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala allahu acdadtu li cibaadi saalixina ma la aynun ra'at wala udnun samicat wala xatara ala qalbi bashar faqra'u in shi'tum fala taalamu nafsun ma uxfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kaanu yacmaluun moo tax bu réew mi tolloo yenn tolluwaay war nañuy indiwaat lenn ci njàngaleem mag ñi am na ci mag ñi wàccoon nañoo seen waa jamono la boroom xam-xam waxoon ne réew mi wax wax fi ak nit ñi dafa jafe da daan ne yetti njaboot a fi nekk am na fi njaboot goo xam ne seen kilifa bind na wax na am na ci ñoo xam ne seen kilifa bindut waaye wax na am na ci ñoo xam ne seen kilifa bindut waxut te dañuy bëgg koo wax wax ca ka ca des waaye am na ci ñoo xam ne seen kilifa nee na ñi muy jëkk a waxal mooy ndaw ñi mag mu neex nga jël waaye jàngale na pas-pas bu leer boo xam ne ku wujj feneen nit moo fa wujjil boppam waaye du ko la yoog moom ëllëg imaanukum yaa ayuha sigaaru bi man lahu bi man lahu sigaaru wal kibaaru an tuminuu billahi walmalaika wa kutubi haadi saalikin wa saalika wa yowmihi alaaxiri walrusli alkiraam walqadari alladi yajuudu bilmaraam yéen ndaw ñi yéen lay gën a waxal ngeen màggaale ko gëm yàllaa ngi nii ñi ñu leen di wax nag bari na li ñuy gëm bari na waaye yàlla mii ñu war a gëm mooy kan mooy mi bind mooy mi dundal mooy mi ray su ngeen ca bu ngeen mokkalee bind boobee ngeen xam ne ngeen gëmaale ne am na ay malaayika malaayika yi ñu leen di wax lu am la malaayika du ko ñuy gëm ni ñuy gëm yàlla waaye da ngay xam ne lu wér la da ngay gëm ne lu wér la amal malaayikatu fal imaanu bii mu wa tasdiq wal iqam bi annahum la shakka mawjuduna suma mina duna maasumuna waaye téere yi ñu lay wax it عددها غد وياء نزلت yi nga ci xam ak yi nga ci xamut yépp mosoon na fay jaar ñu fi alxuraan nekk te téere yooyu ñooy gindi nit ku bañ a réer looy bëgg a def demal ne lu ci alxuraan wax lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ana sama kilifa lu mu ca bind su fekkee ku bind la baax na su bind nga ne lu mu ca wax su fekkee waxut bindut nag nga dem seeti keneen waaye nee nag boo ca noppee téere yooyu fi mu lay jëmale mooy nga xam ne sa pas-pas ak sa jëflante ak nit ñi bis dana ñëw ñu topp leen ko yéen ñépp rek la leen ko bam na coow da ngay dégg courant da nga ma ko remboursé jusqu'au dernier centime yàlla rek moo ko moo ko war a wax moo ko sañ a wax waru ko sax waaye da ko sañ wa yawmil aaxiri la ca teg mooy li ñu doon li ñu doon fàttalante léegi war rusulil kiraam al mursalin wal anbiya dafa am fu mu yam ci yonent bi la jeexee ñoom ñëpp anbiya yi maanaam nekk ab nabi mooy doon bunt bi ubbil bi bi ñuy ubbi kooka dem ci nekk rasul am nañu doon nabi rek yam ca daal yam ca am ñoo xam ne dañoo jàll nekk nabi nekk mursal waaye nag ci yonent bi la jeexe maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul allah wa xaatama annabiyin wa kaana allah bi kulli shay'in alima lu jamono soppiku soppiku foofu yàlla taxawloo nañ fa taxaw wal qadar alladi yajudu bil maram yeneen yi ñëwit sabab mën na caa am waaye lu ci sotti yàlla la soob bu dee lu baax la bu def safaan kooka la soob ndax yàlla leeralal na ko yaar yu baax yépp inna hadaynaahu shab- sabila imma shakirin wa imma kafura yàlla na nu yàlla defal dëgg ak topp te dëgëral suñu pas-pas rawati nag bi yàlla jàngale ci alquran jaarale ko ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jëfe ko boobee mu fi jógee ba léegi it ñi fi jaar ñépp am na ci ñoo xam ne tuur nañ seen deret ngir loola sax fi am na ci ñoo xam ne génn nañ leen fañ dëkkoon ndax loola sax fi am ñu tàggale seenu njaboot ngir loola sax fi am na ñoo xam ne bañ leen jëlee ba fi ne xamatuñ fi ci luñ nekk yàlla rek ku xam ngir loolu sax fi kon kenn ku nekk am na ci wàll woo xam ne na ko tàmbalee dund ci bopp ci biiram moom ci boppam xam ne bisi nga ñëw boo xam ne bii bokk na ci turam yow ma tubbala sarair bis boo xam ne dara du fa nëbbutu kuy wax ca kaw ngay wax ñëpp yi dégg kenn du ne may ma ma xool tam ni ñu gis jant bi la ñuy gisee ñëpp par kenn nee na miqdaaruhu xamsiina alfa sana bis booba ci suñu takk mën naa yàgg ba àgg ci juróom fukki junniy at juróom fukki junniy at ñu bari si ñun dañ leen di nett la ca xewoon waaye ñi ko fekkee bariwul loolu mooy ak maanu ñi ko fekkee nii bariwul rawati nag yiy ñëw ca kanam yi nga xam ne nit ki du ko fekke yàlla na nu yàlla dafa digg ak topp te nee na bis booba su agsee bu nit amoon joxe woon lim yor lépp it du tee ñu wax loo ko lam defoon du du tee muy wax lam doon def lépp ca kaw ñëpp yi dégg ñu di ko peeseel ñëpp yi dégg ñu wax lam am ñëpp di dégg ñii gis rek ci jamono yi rek ñu naan diw ñoom demoon nañ ca sëñ diw sëñ Muntaxa yóbbu nañu fa nangam suñ ko waxutoon ku koy xam misaalum bis penc la yàggees na koo joxe te kenn daawu ko yëg waaye jamonoy dox ba yàgg lu xew rek ñëpp yëgandoo foofu nag lay gën a fese yawma tubla sarair yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin